dem internet lettre bi man ma bind lettre bi ñuy tontu ci turu commission relations extérieures caché relations extérieures non président de commission relations extérieures pratique bo xamantene bi fam tambulé depuis 2009 biñ créé li nga xamné mo commission relations extérieures muy benn ci commission yi ne ci comité d'organisation bi man ma en commission relations et religieuse depuis 2009 qui ay jokkoo lañu xamal né amna ay appui logistique yo xamante bi wa présidence man nañ ko défal ma jël euh, sama bima ci ak yi nga alors le président du comité d'organisation. comité il y a une commission comme commission communication ak yeneen di defee ay correspondance a une cheikh ak ñeneen non la commission relation extérieure a ay correspondance yoo xamante ne bii je rek ci demande appui logistique bi nga de bi présidence dañu daan jox euh, chambre di ñu jox ci parc automobile bi juróom benn oto léeg-léeg sax am na at moo xamante bii ñaari at yoo xamante bii seeni oto dafa maanaam nekkoon en panne ñu luyee ay oto jox ñu loolu comité d'organisation bi xam na ne am xam na ne dañuy am ay gan te bu ñu amee ay gan di leen dugal ci oto di leen andi di leen jaarale ci hôtel ci hôtel ba kon man loolu su ma ci amutoon ay sañ-sañ ci liñ ma ci toppatooloo di ma ko jiitaloo pour ma seet na mu baaxee di ci diisoo ak ki nga xamante bi mooy kilifa gi ko yor la kon du ma ko def mbooleem ñi nga xamante ne bii loolu lañ daan def def nañ ko ren demande dégg appui sécuritaire gendarmerie ak ministère de l'intérieur demande aux autorités donc de l'aéroport d'un demande ministère des affaires étrangères qui la commencé lettre de transmission bi nga pour inviter le corps diplomatique le ñu de ko chaque année bu fekkente ne bi xëy na euh, donc dafa am yeneen autorités yu bees yoo xamante ne am na nu ñu bëgg a doxale ba tax maanaam coow li am man li may njëkk a déplorer di ko dénoncer mooy man du ma jël mukk benn lettre confidentielle wala officielle dégg nga di ko publier di ko publier ci internet man loolaa njëkk a ñaawlu journaliste un no comment li ci andi sama tour moy ki tontu man m'a bind ci président de commission relations extérieures mu tontu def sama président du comité d'organisation man musuma wax président de commission de d'organisation man donc président de commission relations extérieures te kilifa yi nga xamante bi ñoom war nañ koo gis buñ ma ko laajee moo won leen lettre bi ma leen bind ak sama signature ak sama tur ak tur commune ak ci antenne commission relation te loolu du commission relation kese yeneen commission yépp ku nekk yaa ngay liggéey ci sa domaine dégg nga ci sa entête moo xam dégg nga ci coordination bi la moo xam yeneen commission yi la donc nag boo gisee ma def lii nag damaa dégg ay wax yu tàmbalee génn mel ne comme man sama tur lañ ci tudd damaa def lenn lu mu war def euh, su ma nag euh, euh, buñ ma laajoon nag ma leeral mais comme damaa gis ab message bu mel ne man man la ñuy desawuyee mel ne man damaa def lu mu war def moo tax damay leeral lii nag yam fa nag bañ nag gëstu ba lu ñu war a leeral donc ñu leeral man defuma lenn lu mu war a def dégg nga defuma lenn tam lu ñu xamul ne maa ngi koy def waaw kon nag man fas naa yéene eh, malheureusement su ma ko déggoon eh, bu ñu ma laajoon avant ñuy wax dinaa leeral mais comme li ma dégg ci presse bi seetaan ko ci internet bi yem ceeg ñëpp ñu ne le comité d'organisation bi musta demandé dara kon lay xam ne man li ma demandé ci turu comité d' organisation bi laa ko demandé dégg nga te defuma ci lenn lu wuute ak loo xamante ne bii maanaam euh, euh, lu ma warta wax la te itam fukki at ak nangam ñu ngi koy def dégg nga sant ma képp nag lañ ci daan def waaw sant ma comme ni ñuy sant ñeneen ñi nga xamante bi seet nañ lay doxal seen liggéey. ñu def ko am ko ci amoon wu yiw woo xamante ne bii maanaam ngeen ñàkk benn wu ci ñi ma njëkk a laaj dañ ma laaj ne ma mbaa loolu di leen andil ay jafe-jafe may leen ban jafe-jafe dama leen man du ma ci wax kenn déggul ma def ci benn déclaration journaliste yi yi sama tur lu dul ne leen du ma wax ci loolu dégg nga ñu ne ma ndax loolu kon dina andi rëq-rëq may leen déedéet ay yombal la ñu andil ndax taalibi Sëñ Tuubaa yi ko dégg dégg nga ñoom lañ soxla woon jox nañu ba jox ñu lu ëpp lañ daan soxla te itam ñun ni ma ko ko ko waxee ñoo ëpp ñun bu doonoon ñun bu ñu xañee dégg nga duñ ko ma mën a am walla duñ mën a réagir li ñu def te ku ne am na say doxalin ñi ngi sant ndax defe naa ne li gouvernement bi nguur gi séq ak sëñ bi séq ko ak comité d'organisation bi ak lay seen warugar ñu di ko def taxaw di ko taxaw defe naa ne moo ëpp li nga xamante ne bii ñun ñiñ ko wax bi ñu ko waxee comprendre nañ ko nangu nañ ko dégg nga te teguñ ci baat lu dul jéem a seet nuñ fexe ba liñ bëggoon dégg nga ñu am ko ci armée gën a rafet xarabuñ kenn dégg nga te defe naa ne laaj laajuñ lenn luñ ñu laaj wala ñu def lenn lu ñu war a def man nag du ma benn lettre waaye lettre bi ñu tontu maa ngi moom ku ko soxla te war koo gis. man na la ko won ba xam ndax man dama wax ci turu kenn ku dul sama turu ci sen sen yañ ma jox ma ngi jéggul ñepp nak li nak fi ma ko déggee ko tontoo internet la ko déggé waaw buñ ma lajoon do wax ma tan ci liñ ma laaj waye comme dama jëkk jëkk gis ko ñu wax ko ci internet ne comité d'organisation bi mom mu se demander ken dara te man ma bokk ci comité d'organisation bi yor ju commission dégg ñu jox ma ci sañ ma def ko fukki at nàngam kon loolu laay tontu lii nag yam fa lépp lu ma nag lu ñu ma war a laaj ñam ma ko war a seqal dinaa ko xam ak moom kon maa ngi santaat yàlla di eh, ñaanal Cheikh mu Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi te wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.